ñu wax tey li ay di jàmbat mooy affaire stade maître Babacar sey kon ñu ci toog bañ ci wax bañ ci jëf te jëf ci tamit romb na moo di monsieur le maire ñëpp dund ko dégg mu wax ne dafa am ay doomu ndar yoo xam ne yu am solo ndax loolu lañ ko mën tuddee personne ressource mooy ñu am solo ñu am baat ñoo xam ne dañ ko seet si nekk ay stade bii daal nañ ko fi jëlee ñu yóbbu ko faneen muy stade maître Babacar sey ñun nag bi ñu ne lu mel noonu li ma waroon def mooy dox ko woo Saint-Louisien yi ñu waxtaan ci ndax stade Babacar Seye yamul rek ci football stade Maître Babacar dafa bokk ci ci patrimoine ci gànjaru Ndar ci gànjaru Sénégal ci gànjaru Afrique ñu tudde ko nag koo xam ne tey jii di doomu Ndar boo xam ne macha allah nekkoon maître de Saint-Louis di Maître Babacar Seye yelloo ko lool tey jii ñu ne dañ ko fay jël te boo ko fay jël da koy reyaat beneen rey kon bala nga fay jële war nga ko jële ci anam yu leer ak ci lu wér loolu moo tax ñu ne kon ñun kat bala ñu ciy wax suñu xalaatu bopp nañu dem seeti waa Ndar yépp seeti même ñi nga xam ne nekkuñu fi waxtaan ak ñoom laaj leen ndax lii ñu bëgg a def ndax d'accord nañu ci wala d'accorduñ ci te mbir mi sax dañ koy yaatal ndax wax na ne stade même bu nekkee ndar stade bi département de Saint-Louis yëpp ko moom muy commune njaboon Gandiol Fass Pal dégg nga ñun ñëpp ñoo bokk ndax booba département bi région bee ko moomante léegi département bi moo moo fi nekk kon loolu tax ñu ne te ñu bi ñu nekkee nag ci waxtaan woowu yaatal ko lool di seeti ñëpp ci lañu nag ñi jege ndoo maire. dadi di bi ñu demee sét leen xamné kat plateforme bi ñu kurel gi ñom tam ñu taxawal benen kurel te kurel bobu wax nañ ne ñom dañuy tok waxtaan dégg nga tok di waxtaan ñom ci seen sportifi, sportif yi dégg nga te du ñëpp pour jéem sét lan la ñuy wax mer ñu yaakar ne digënté lan la ñuy def ci stade bi ndax dañ ko fi jëlé def ci centre d'affaires wala bañ ko def dafa naani di tok ay fani fani fan di naan dañuy tok waxtaan. am ay pér jëm ak yëpp defe naa loolu loolu jaru ko fi kon am na leneen lu ko lëmb wante ma ngoog looloo taxoon tey ñu doon def lii pour leeral plateforme yi bokkuñu li leen njëkkati bokkuñu wante wax tamit li nga xam ne mooy suñu xalaat xalaat bi nag dañ ko tënk ci lu wér ndax ndar dañ leen di wax di dëgg ndar dañ leen di wax li am dañ leen war wax di am ndar dañ leen war di laaj bala ñuy def dara ndax muy maire ak ku mu mën ci doon bu fekkee ne dañ la fi teg bala ngay def dara da ngay laaj askan bi mais laaj leen ko ci anam yu dëgg te won leen dëgg dëgg dëgg li nga sa xalaat ndax boo gisee mbir mi xaw lëndëm xel moo di stade bi nga xam ne mooy stade ba waad waad commune bi moo ko moom maire bee ko yilif mais stade Babacar Seye wax naa la léegi ne département bi ñeenti commune yi fi nekk yépp ko moom kon lu ñu ciy war a def ñeenti maire yépp war a toog waxtaan hmm, wala ñu laajte ba ñu bokkandoo ci waxtaan wante beneen mbir mi moo di stade bii ñu bëgg dindi ñëpp fàttaliku na am na ñeent ba juróomi at ministère bi amee sport nga xam ne mooy mooy kilifa stade yëpp ñëwoon na fi wane maquette bu rafet ne onze milliards a ngi nii stade bi nii lañ ko fiy defee waaw lu fi lu fi lu fi changé diggante bi man ma yaakaar ne bu fekkee ne ñooñu dañu ñëw wax loolu bu le maire nekk dañu bëgg ñu dindi ko fi ndax xat na. mais xana door nañ ko indi nekk kat lii ñu defoon ministère bi kat indil nañu kayit ba mu defaroon nee dafa juum wala ñoom indi nañ kayit boo xam ne wane kat ministère bi la defoon dafa juum ba li mu ci stade bi mënu fi nekk mais indiwuñu dara lu ci wax kese. baneen bi stade Mawade Wade nee dañ koy def palais de sport 6 milliards yaa taxaw pour gën ko yaatal defar ko ba xam yeneen discipline yi basket yëpp dana fa mën nekk macha Sénégal Coupe d'Afrique bii di ñëw ñoo ko war a organiser ak gini président Macky Sall ne bëgg na ndar ab stade omnisport AGETIP moo ko yor AGETIP ñëw na ndar seet fee nga xam ne diggante xaar yàlla ak ngalal jóge fa dem fii nga xam ne boo demee tàkk gi nekk ci gannaaw njëlofeen ba dem ba ca laybar ñëw nañ xool ne boobu moo gën seen mbir rek mooy bu ndox mi egg ca laybar te ñoom gis nañ technique bi ñuy tax ba du lool ne foofoo gën wa kon nak bu ñuy wax stade Amnistoire stade Amnistoire am amna place wutal nañ ko place waaw fii ñu fi juddu démb ndax nit ñoo leen mag nag tuuti dégg nga ba yéen xale yii nga xam ne tey stade bi ban problème moo ci mas a am dafay tee ñuy fubal fii nit ñi dañuy dox oto yi di dox benn problème amul léegi daal lañu gis sikk gi léegi lañu gis sikk gi ba ne dañ ko fiy dindi pour lan waa nag ñu ne dañuy def centre d'affaires mais centre d'affaires centre d'affaires man dama yaakaar ne booy def centre d'affaires ndax centre d'affaires da nga koy def booba bu sa koom-koom yëkkatee sa usine seen entreprise nga xam ne fa ngeen di ne daje mun am lu gën a wax yow nga ne lan tey ndar ji amul benn usine ndar amul benn entreprise nan koy waxeeti euh, kii bi yàqu na sunu sunu sunu napp gi yàqu na tourisme bi gisa sa sunu touriste waa loolu ban centre d'affaires ma ne centre d'affaires xam nga lu gën place Ablaye Wade be, wala nga defat ay marché yo xam dana am kom kom bu komkom kom bi jógee ba pare nga sokoy wax centre d'affaires defe naa ni priorité le nekat lolou motax ñu wax loolu nekkat dañ ko yaatal xalé yi nga nak dañu xol ni ñom d'accordu nu ci lolou am lu rafet lu ko jëmmalé ci sadbu bu ba sax mi ñaawon dafa rafet tax ñom dañ fa def lu yandi loo xam ne wane ne kat dégg nga ñun kat bu kenn laal suñu stade nan defar la ne mais nan ko bàyyi nan ko fi bàyyi ma ne xataay bi xat na nan ko def na mu na mu meloon def ci gazon yëpp dégg nga football nan ci fanweeri at ak lu ëpp fanweeri at ñu continuer du ci football te kon nag am na yeneen stade yu ñu wax ne maître Baba ne ne Mawade Wade ak beneen bi ñuy defar macha allah buñ ci boolee defal Wembley defal faneen defa naa ni stade bii ñu wax ne du soxla mbir mi nag bu nu demee ba def loolu am ñeneen ñoo xam ne dañ leen yabal xamuñu ñooñu xamuñu ñu leen yabal mais xam nañ lu tax ñu yabal leen ndax bu fekkee ne da nga def ne bu lu laal sama stade bu nekk Babacar Seye ñoom ñu ñëw yàq mooy d'accord ñu ak ñi nga xam ne waxuñu loolu da waxuñu ne ñi wax ne buñ ko laal kon ñun dañu bëgg ñu laal ko kon li maire bëgg li nga xam ne moom lañu wax nga xam ne mooy véritable volonté bi mooy dindi ko def ko centre d'affaires ñun loolu lañu bëgg kon ko xalaatul loolu du xalaat tan loolu du ndar yaakaar naa ne ñoom ci seen wet bu ñu defaroon ñoom tamit benn wane ne kat nii la defar yéen defar ngeen fee ñii defar nañ fee mais ñun bu ñu defar mooy d'accord nu ñu délocaliser mais boobu jàmm day ñëw ku ne ku xool ku ne wax sa xalaat wante man sama xalaat rek ay dox kon ñu xool ne ñii nga xam ne dañu wax ne délocalisation bi amul lan loo xam ne jaralu leen ka looloo tax ñun lañ continuer daan ko continuer ndax yëf fii gis nañ ay sportif mais gis nañ ñeneen ñi ñu ko bokkal yépp waxtaan ak ñoom ba xam ne samedi daanu daje assemble ñoom ñëpp wax seen xalaat léegi nag bu fekkee ne nee nan stade bi kenn du ko laal ñu xool ne majorité Saint-Louisiens yi ay sportif a ngi mais ñeneen ñu dul sportif yépp mooy seen xalaat ba ci waa kër maître Babacar Seye ndax du ñu nangu ñu reyaat maître Babacar Seye deux fois mm. bu boobaa bu fekkee ne nag wax nan ko maire ñaara mën a am nag mu ne CNG yi ëpp lii la ñu bëgg ñu jéem a seet ak lu ci xewoon ak lu ci mënoon xew nu mën fexe ba delloo ba ba ba ba bàyyil stade bi Saint-Louisien yi bu fekkee ne nag ah am na leneen bu boobaa wax na ne ay action yu bari mën na am mais comme ni ñu waxee bu ñu demee ba ca réunion ba ca assemblée ba nit ñiy seet ndax bañu nu ko bu ci waree bu ci nit ñi bëggee ba war marché bu ko jaree nit ñi marché te bu bis boobaa. bu nu tiiree nit ñi bu nu dee tiiree mu wér ne muy man comme ñi fi nekk dan naan yàlla na njëkk dal ci ñun ndax ñun ku si ne fii ndar jaral na la sa